94 Walf Sénégal dellu si na di leen chaar di chaare mboolem képp koo xam yaa ngi topp sunu site bii di 94 Walf euh, Sénégal seen analyse chronique yoo xam ne dañ koy defal saa soo nekk ci réew mi ak bitim rew ñu ngi leen di jaajëfal di leen chaar wéy leen di toppal 94 Walf euh, Sénégal voilà ñu ngi gis partage yi ñu ngi gis semi ñu ngi gis commentaire yi yéen sénégalais yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax sénégalais bu nekk rek da nga la fekk fa nga nekk dinañ la fekk fa nga nekk ñu la la loxo nuyu la siyaar la jaajëfal la wax dëgg yàlla euh, gis nañ bu baax a baax a baax topp gi ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax voilà Mame Mbaye Niang wax nañ ni dafa daw voilà bi mu dawee nag kenn ku ci nekk maa nga naan voilà kenn ku ci nekk yaa ngay wax ñii naan ma nga Canada ñii naan ma naan ma nga Belgique voilà ndeke moom mi ngi Maroc biñ ko localisé voilà loolu nag c'est normal mën naa mën naa mën neex a gëm ndax bu ne yaayam moom marocain la voilà kon dafay euh, euh, euh, neex a gëm loolu voilà xam nga nag vingt neuf milliards moom du dul ay caaxaan vingt neuf milliards moom ku amul xam-xam ñu jox la ko nga pasar pasaree ko mu leer ne rapport boobu noonu di vingt neuf milliards yi ñu la joxoon pour nga liggéeyal ci senegal nga jël vingt neuf milliards yi xam foo ko dugal loolu moo dul ay caaxaan xam nga kon Mame Mbaye moom moo gën a dugg moom voilà parce que li problème bi mooy ki leen fi nekk ki fi nekkoon doon leen protège ci ay caaxaan nekkatu fi ñu jël réew mi di ko pasa pasaree di nax nit ñi voilà di jàpp ni ñoom rek ñoo fi war di nekk ba faw voilà xaalisu Sénégal ñu ne ko deneex wan seen yoon nekkut ci réew mi nu muy doxee wala ba mbetteel am ci ñoom tey voilà léegi nag comme vingt neuf milliards yooyu noonu rapport am na na ñëw lijjanti rapport bi parce que sénégalais yi dañoo soxla seen vingt neuf milliards tamit parce que réew maa ngi nii gis ngeen ko tey jii góota guñ dugg rek scandale gu réew dugg rek yéen ko fa dugal yéen régime bii fi jóge yéen ko fa dugal voilà parce que bu fekkoon tey jii da ngeen a sérieux woon nekk ay nit yoo xam ne nii yam ngeen ci li nga xam ne moom lañ leen di fay muy seen alal kan wax dëgg yàlla mbir mi du demee nii waaye comme jël ngeen xaalis boo xam ne jox nañ leen ko ngeen ni man ngeen te mënu leen ngeen jël xaalis boobu no xam fu ngeen ko dugal xam naa ne moom euh, euh, gëm naa ni man xaalis boobu noonu dañ koy diwal ci ay immeuble parce que yen suuf dong ngeen gëm voilà defar ay gratte-ciel di ko luye jël xaalis bi jëm koo rawale ci seen dëkk yooyu nga xam ne voilà waaye loolu moom xaw ma lan waaye mandat dere moom day am voilà lii nag leen a metti parce que fii fii wala lépp loo xam ne nii am na lu leen dal mu metti leen ci seen euh, jamono bu mu leen metti ndax yéen fa nekkoon wax ni yéen man ngeen voilà bi ngeen mënee ñu jël xaalis bu bari teg ko ci seen i loxo voilà xaalis boobu rendul defu leen ci dara te rendul leen compte benn yoon sénégalais yi xanaa di leen napp ak di leen nax ak di tëj ak di leen xoqatal ak yu kenn xamul voilà ñii nag dañoo caaxaanul xam nga 29 milliards moom sénégalais yi moom duñ ko baale yaakaaruma ñu baale kan bu fekkee 29 milliards yi mi ngi ci yow ñibbisit ndax rapport bi moom ñëpp xam nañ ne am na te yow xam nga ni sax am na waaye nag gis nga ko bi fi nekkee nungu nunguwoo ko nga xam ne maanaam sa procès boobu noonu rek li ci dee kenn xamul nu mu toll li ci gaañu ñi ci damm ci sa procès boobu nga xam ay procès caaxaan la nga osé na taxaw jàkkaarloog nit ñi nekk ci presse bi sonal nit ñi tàngal nit ñi mel ku am dëgg ci kaw Ousmane Sonko ci lim la doon wax waaye tey nag. mandat dere moom buñ la ko dóoree da ngay ñëw waaw mi ngi noonu voilà beneen bi ci des tamit moo di lu jëm ci suñu wàllu géej gi rek ak ndaw ñi nekk ci réew mi rek nga xam ni ba léegi rek ñu ngi continuer rek di wéy di dem rek ngir jàpp ne maanaam bitim réew moom buñ fa demee mën nañ fa tekkee parce que jàpp nañ ne seen alal moom bitim réew mi leen gën a ëpp yaakaar pour amee ko fa am na ñoo xam ne suñu génn réew mi te am na lu ñuy gàññi te ñu ngi dem ak ñëw saa su nekk réew mun bëgg a dem dem fa te mosuñoo génn réew mi mosuñoo dem fenn de immigré ji mbirum xaalis ak alal sans la suñ borom mooy xool ko ko neex mu jox ko ko dëgg la nit nag dana liggéey dana sabablu ji waaye sabablu boobu noonu euh, dafa àndut ak yàkkamti voilà ñu gis ne nag ndaw ñi moom dafa mel dañoo yàkkamti te wax dëgg fa yàlla euh, senegal gii buñ ñu fa toogee muñ euh, jàpp naa ne euh, dina baax parce que li tax ñu wax loolu mooy matières yi nga xam daf fee nekk muy pétrole ak zircon ak gaz ku ko xam ku nekk doo ko ko caaxaane di wan ginnaaw sa réew naan day dem ci yeneen réew di fa immigré ji ndax lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg immigration yi nekk ci bitim réew ñu bari dana ñibbisiwaat ci réew mi li ñu bëgg bu amee wala régime bi li bëgg bu amee voilà mi nag faaw mu metti voilà parce que depuis cinquante ans ba léegi yaa ma gën a xam ñi fi jaarul seen bopp dong lañ fi nekkaloon bu ñu waxalee yàlla parce que bu ñu defoon la war a def dëgg dëgg dëgg dëgg yaakaar naa tey xare yi tey jii duñ jël géej gi di dee ci ndox mi voilà kon heure bi day fekk tey Sénégal ñoŋ comme yeneen réew yi seen doomi réew yi di liggéey yem ci seen réew di gis seenu njaboot di gis seen i mbokk di gis seen i ak seen i baay toog ci réew mi wax dëgg yàlla amee lépp ci réew mi waaye nag soo gisee ñàkk yaakaar di jël mbeex mi loolu yëpp c'est parce que mooy ay dirigeants yo xam ne wax dëgg fa yàlla mënuñu yóbbee lii réew mi tey te voilà mi ngi nii mënuñu dara lu dul rek di ci wax parce que ñoom ñii tey ji képp ko ci wax rek bokkoon ci ancien régime yi fi nekkoon rek yow amoo droit wax parce que bu fekkoon yow da ngaa jéemoon sa kéemtalaay kattan yow mi nga xam da ngaa amoon poste ci gouvernement yi fi jaaroon sa poste nga respecté ko yem ca la nga war a yem li Sénégalais yi moom ñu yem ñu jox leen ko kon yaakaar naa ne tey yéen du ngeen taxaw fii di wax naan wala xale yi nañ toog ak nangam nangam voilà xale yi moom kenn amul benn condition buñ leen mën a wax boo xam ne nii voilà li ci des nag moo di euh, dafa am ñoo xam ne nii yàgg nañ ci tukki am na ñoo xam ne nii am nañ expérience ci tukki ñooñu comme li nga xam ne suñu président bi wax na ko muy euh, numéro vert yi nga xam dañ koy joxe ku gis loo xam ne ni voilà dalu sam xel ci ñoo xam dañuy teg gaal pour dem loolu nañ ci taxaw mu nekk lu sérieux voilà bu ko defee tamit euh, ñu leen di yoole ñu leen di dénoncé ndax ku dénoncé wala am dara loolu ah kay pourquoi pas parce que tamit euh, tant que egguñu foofu tamit wala yaa ma gën a xam beneen bi ci des tamit marine yi nga xam ne ni marine bi nga xam ne nii moo nekk ci ndox moom it mu gën a farlu bu baax a baax a baax ci ndox mi euh, kon. Euh, yi yëpp buñ ko boolee rek incha allah rabbi dina euh, euh, am njariñ bu baax a baax a baax ci réew mi ni ñu bëggee mu doxe noonu voilà xale yi nag fii ñu toll ni mënoo leen a wax lu ñuy dégg parce que da ngay gis koo xam ne ni yéen a bokk nekk ci quartier bi mu tukki wala du yàgg rek mu daal di commencé di tabax wala wala moo ñibbi si indi oto voilà xamoo nu ma amee oto ba xamoo nu mu tabaxee tamit nga ne voilà waaw lii laa doon wax faaw ma dem fu mu mën jaar baax na gaal yi rek nga lijjanti taqale wala sa mère jàppale la ci wala sa papa comme ni ko ñëpp di waxe bu ko defee nag wala nga sóobu ci ndox mi fekk yow wóoroo nekk ko xam war ngaa jaar ci ndox wala gaal ga daanu wala gaal ga toj wala nga dugg ci biir ndox mi neer wala lu nekk mën naa am ndax am na ñoo xam seen gal mën naa egg am ñoo xam duñu yegg ndax duñu nitu ndox loolu yëpp daf ci am te loolu yëpp duñ leen ko bàyyiloo xel kon Euh, lenn lu ci nekk dafa am aw yoon ñu war caa jaar kan nañu jéem a jàppale xale yi ngir yàlla ñu toog ci réew mi